asalaamaaleykum kàddu yu gàtt rek lay doon jëm ci manipulation bi nga xamante ne bi tàmm nañ ko seetlu nañ ko ci semaine bi ñuy génn ku nekk di yëkkati di wax màggal Tuuba màggal Tuuba màggal Tuuba màggal Tuuba nag ñun murid yi suñ bakkan bii lañ ci teg ndigalalu sëriñ Tuuba te ndigalalu sëriñ Tuuba yi suñ bakkan bii lañ ci teg dañuy taxaw ci fa sunu maam yooyee ca làmbaay waxoon Tuuba bi ne ko da ngay dañuy dem tuuba folli la tey teg sa ndomb tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lank ñooñee dem Touba bakkan bi lañ ci tegoon ñun nag te ñooñu nag lañ ñooy suñuy roykaay taalibe yooyu ñooy suñuy roykaay màggal Touba moom dundu dem dee dem dundu dem dee dem ñu ngi fi wax lu nekk nag dem bay wax naan màggal Touba sëñ bee digle waaye wootewu ko Touba sëriñ Falilu mooy sëriñ Touba ndax moo ko waxal boppam moo ne may Serigne Touba bu ngeen ma noppee gis doomi Serigne Touba ngeen gis fekk ngeen may gis ne ngeen ne yéen gis Serigne Touba daane lu ñuy defal Serigne Touba ñu koy defal ci wetam moo ëpp tiyaaba te Serigne Touba bi muy digga màggal ma nga njaareem waaye nag fi mu ne nii Serigne fii ci Touba kon nag màggalu Touba ci Touba màggalu Touba ci wetu sëriñ Touba